ça va bien. naka journée bi. ça va ça va ça va un peu fatigué ak liggéey bi mais ça va. Jérôme gis nga sànq dama dégg tout juste euh, après intervention Diallo. Mm-hmm. mais en fait kenn comme ni ñu waxee doo ko tontu. c'est que c'est vraiment désolant quand il effectivement c'est même suñ ko voté wulee c'est le président de tous les Sénégalais. Mm-hmm. mais on est dans un pays de démocratie, un pays, c'est une république. Mmh. On peut l'accepter de notre président, mais aussi, c'est un respect, c'est une institution. Mm-hmm. mais lu tax ñu ne comme sànq la ñu dugal commentaire moo ko liggéey saaga yi kenn du ko d' accord. Mm-hmm. da ngay calculer fi nekkoon sa papa wala sa responsable question par rapport à une démocratie mais lu tax ñu ne moo ko liggéey parce que mënoo nekk sa biir dëkk. te député yi suñu buggee manifester kenn du manifester il a fa suñu toll génn ak étranger justice bi que benn côté bi lay dem mhm. tëj nit ku deful dara ba muy def grève de faim même man sama ennemi dafa am fu muy toll ak moom mhm. yenn yi dootul mën a teel ci moom kenn ñemeetul wax dëgg doole am na do bëri na lool mais du mës a du mës a gagné kanamu dëgg day yàgg loolu nit ko mu si gàñ comme ñu doon waxee tey am na benn parole bu ñu ñuy ñu ne loolu moo ñu dal Sénégal au fait Desmond Tutu dafa ne euh, ñoo xam ne dañuy gis lu dëgg noppi loolu da ngay da ngay ak ànd ak bi en quelque sorte gis lu dëgg moo continuer di koy wax dafa ñaaw lool que Sénégal ñu koy xamee ci technique bi ñu lay yuuxu mhm. mais yëpp dañoo war a laaj lan moo fi indi ndax lan nguur rek c'est vrai Macky Sall du def dañ doon ne wàdd mais dafa leen raw di dem mhm. mënuñu nekk dëkk coup dëkk yoo xam ne dañuy def coup d'état mu am zéro mort mhm. wala moins que ça nit yi révolté wu génn te manifestation mooy le cas de Mali te doo dégg yenn manifestation yi je t'assure soo ñëwee Europe manifestation comme genre yi nii da ngay dégg borom dëkk bi ñu dalal sax gars di koy yekkal yenn nii mhm. te police moo lay encadrer ba nga egg loolu mooy démocratie mhm. mais tu te rends compte on tourne dans les quatre vingt personnes tuées doo mës a dégg ñu lay ne la justice en cours mais c'est ça au fait loolu moo indi lii d'accord mais loolu moo indi Mhm. soo nekk sa di dëkk ci jaay mënatoo génn te c'est-à-dire dootul amati jot ak mënatati dem ci ñoom ñëpp ku nekk ci pouvoir soo génnee à l'étranger mhm. te gisuma lan moo ko fi jar ñun ñëpp dañuy dem ñëw soo demee ba sa dëkk mënatul lépp cher mhm. ndox bi su su tawee sa doo liggéey dangay nekk étranger lépp cher en fait lépp après su jógee dine comme moom lu saayoo comme ko kii genre nit ñoo ñuy lor mhm. parce que ñu dañuy wax pour suñu avenir wu doom ba léegi bilan matériel c'est contestable ñu wàcce démocratie à un niveau boo xam ne mooy bi porte à tout faire mhm. les vraies questions de ñun dañuy set on est à trois ou à cinq ou quatre mois des élections mhm. kenn amul programme soo nee programme ñu ne la Sonko te Sonko am na programme kenn duñu wax si lu ñu gën a intéressé te suñu det dëkk bi dafa exposé comme pas possible ñun waxuñu contrat yi dañu ne li ñu négocié suñu image yëpp yàqu ñoom ñoo tax ñu ñuy yàpp loo ma tax tubaab bi wax tubaab bi am na ñoo xam ne mënuñu ñu la mës a gëm sooy wax ak ñoom mm-hmm. seen politique internationale parce que seen président ñoo fa nekk mm-hmm. ba léegi tubaab li muy xool xaaral day xool am na ñoo xam ne ñu ko capable def ne yow sa propre peuple bi la fal nga ñëw amuloo lool leen di remercier nga leen di tiiree. Mhm. mën nañu ne lépp mais ñu doxal justice. te suñu waxaale mooy comme que kaaw Coura Macky man du ma pareil duñ ko duñu ne affaire dóor ah. Mhm. mais jamais du ma ko remercier parce que ci biir prison bi am na comment ça s'appelle man chaque fois suñu waxee kaa bi def. ñoom mhm. falafel Amidia. Tu sais, il y a beaucoup de. Mais des 1000 personnes, c'est-à-dire. on parle de 1200 ou même plus, hein? Oui. te léegi da nga dem mais da ngay seetaan télé sa léegi da ngay sa daw. Mm-hmm. man d'habitude même souvent man sama opinion politique mais j'étais pas je suis pas un Pastef mais c'est vrai moi je suis cent pour cent pour Sonko mais tu te compte dans l'idéologie on pouvait faire Macky Sall c'est lui qui a fait Sonko Macky Sall suñ ko tegalaatee discours te loolu mooy nar a am. Mhm. jarul sax ñuy wax waxu programme dañuy teg Macky Sall ba mu doon campagne deux mille douze douze ñu tegal ko les mêmes promesses qu'il avait dit nga xool tey fu ñu egg. Mhm. kumba bu amul ndey soo waxee ñu ne juste mi ñu doon. soo mhm. amee doole nga rey nit. mais da ngay rey nit parce que parents dafa am foo tollu am foo ñu génne la. man ma ñëw benn Gilbert dem fële na la wax police lu mu kiiwul dox fi mu warul dox ñu ñëw jàpp tëj la fàtte la mhm. ci biir terrain mais c'est vrai que les saaga yi mën nañ ko désolé mhm. voilà mais mais quand même c'est une technique de se battre ku nekk ak moyens yi nga am mhm. léegi léegi léegi léegi léegi mu bëggoon a nga nga waxal ma ci ci ci kaw ci kaw aussi benno parce que comme je le disais. Hmm. Euh, ànd ànd balaa muy neex quand même ñëpp ñi nga xamante ñoo war a ànd déggoo mais ni ñu gisee Abdoulaye Daouda jàlloo keroog def euh, conférence de presse wala sax déclaration de presse euh, taxaw wax ne dina jàppale candidat bi nga xam ne moom la président Macky Sall tàll sans pour autant nommer directement le premier ministre Amadou Ba ndax du frustration ci moom déjà par par le choix mais ni nga xamante ne noonu lañ ko fa lañ jaaree ngir daal di koy daal di wax ak moom ba mu nangu. candidature bi nga xamante moom lañ def euh, ci Amadou Ba. gis nga c'est man comme li nga waxee suñu waxtaan. mais je ñoom lu leen neex na ñu def. Hmm. ñoom daal suñu ku ñu jël ñoo xam ne ñu def seen suuf ñoo xam. Hmm. benn pourquoi da nga dem ba ñiy wax xam man je peux mettre ma main au feu. dina hmm. ñooñu teeru président leer na ma dañ leen fay. mais soo demee xool en âme et conscience benn. pour te dire que ñoom. dèjà dañoo musul woon bëri. nekk mhm. politique Sénégal moo demee noonu. comme ni ñu waxee man jamais moo wax si ñoom seen lu ñuy def baax na. Mhm. gis nga à partir de fii la ñuy xam ne que soo doxaloon. mënoon na demee noonu neneen même suñu liggéeyulee ñu teg affaire u gentleman affaire laïcité affaire république. la mhm. preuve pour te dire que lu ñoom lu ñu nekkee du dëgg. Euh, je crois TFM ngañ baal ma de si tur bi. mooy ngañ euh, mooy jàmm ñu koy bu mu koy ne soo nekkee démocratie amul affaire dooleel. ñoom seen complot ñoom ñëpp yëpp pour le fait qu'il y ait plusieurs euh, comment ça s'appelle scissions à l'intérieur de chez eux ñoom pour essayer wàññi doole opposition da nga dem ba léegi opposition amatul Sénégal man foofu laa reproché la pourquoi gis ñu ne soo gisee Sonko am doole parce que Sonko dafay wax dëgg taxaw jàkkaarloo même état bi su ko mënee fi mu jàpp foofu lay jàpp mais mm-hmm. ñu dañoo teg ne que Sonko li mu liggéey yëpp di oppo ñu koy sànni la mhm. commission loolu am na muy àndal mhm. mais dañoo dem ba opposition bi ragal léegi di mun ñoom ñu teg ne fi nga fee ni waaj day toog arrêté Macky mhm. fi nga taxaw moom loolu moo tax gii voilà soo nee gii gii gii moom wax dëgg yàlla man lu mu teg ci Sénégal man man ñëwuma sa kaar à un moment donné la instant yi lu ñuy def dara ba léegi opposition amatul mënoo sax am conférence de presse opposition mais mhm. foo déggee bennoo ñu ngi def déclaration de candidature mais à un moment nekk ci nekk cadre dine wéy c'est vrai loolu mooy dina na genre naa fekk mu moo ñu dal ñun sénégalais en général d'accord te nga baal ma de mhm. Jérôme xam mhm. dañu am mais man le fait que même suñu ne euh, comment ça s'appelle euh, euh, kiiwu catholique le fait qu'on se taise on peut me dire tout mais man dama ne soo gisee lu dul jaawul waxuñu la nga tànn da ngay jog ne lii amul lii lu dëgg mën nañu woote yu yoon ci gëm yàlla ñun ñu ne gëm yàlla Sénégal dafa gëm yàlla parce que ñun ñëpp religion benn yàlla la ñuy jaam mhm. loo xam ne lu dëgg duñ ko wax mhm. mais bizarrement su ñu ne affaire violence ci Sonko la ñuy tuddee moom dañ ko ñeme moom ñëpp ko ñeme loolu la dañuy gëmantu yàlla mais dañu gëmantu na bàyyi mbaa ñeneen diw merci beaucoup et surtout du courage. merci mais gis na la. c'est gentil merci beaucoup merci. pour ñu mun kon continuer ci débat yi nii. il faut ku nekk mën mais gis na jàll même soo koy tontu sax day métti lool. d'accord merci dañuy muñ rek pour ñëpp parce que. en un moment mhm. donné fu muy mujjee. ci seen genre chaîne yi la ñuy tourner. parce que duñu merci beaucoup du courage ah. merci merci kontaan ci yow bu baax a baax. on est ensemble Gilbert.

Autriche itam maa ngi koy nuyu moom sama émission bi yëpp da ko sonkorisé donc Régis su nekkee am na keneen rek ku bëgg a nga jox ma ko 77 la 810 90.